Euh, tey ci tey nag li ñu indi fii bokk na ci euh, lancer li ñu naan travaux fii ci Tivaouane Peul lancer travaux Tivaouane Peul yooyu nga xam ne mu ngi toll ci deux virgule trois kilomètres ñu séddale ko ci ñaari tronçon yu mag et maire bi ci boppam ci kàddoom tout à l'heure bokk na ci li mu rafetlu parce que nee na bu njëkk benn tali moo fi jaaroon ci digg bi kenn ku ne xam na jafe-jafe yi nga xam ne da doon am ci jigéen ñi nga xam ne dañuy matu nekk ci jafe-jafe yooyu pour ñu génn parfois coono la doon nekk beneen aspect bi aussi euh, pour nga génn dëkk bi wala nga dugg dëkk bi da doon jafe parce que benn entrée la woon benn sortie tey nag ak tronçon yi nga xam ne ñoo ngi ko war a mettre en place dina faciliter contournement fépp foo xam ne ay bouchon la doon nekk dina nekk yeneen porte yoo xam ne nan fa mën a jaar pour mu yombal euh, dem beeg dikk bi.

benen aspect bi c'est surtout l'aspect sécuritaire kenn ku ne ci yéen xam na ne Promoville fépp fu mu def ay tali def assainissement bokku na ci li muy def moy installer aussi ay lampadaires partout. li gën a am solo ci loolu rep moy surtout engagement wu entrepreneur bi ñu xam ne ma dana def kent lay kattanam pour que li ni ñu door ni ñu mën ko réceptionner fi ak hivernage parce que nag président def ñu ne lepp lu ngeen xam ne dañ koy door te mënu leen koo pare fii ak nawet bi di ñëw. bu leen ci lor askan wi kon fexe leen taxawal ko wala ngeen jël de motu ay ay ay loolu nag ci la ñu nekk loolu lañ ñaan yàlla aussi yàlla may ñu fii ak nawet bi ñu mën a ñëwaat fii réceptionné ko wala ku fi mën di doon ku fi mën di nekkit mu ñëw fii avant l'hivernage mu mën ko réceptionné liggéey bu mel nii fépp fu ma am tey dina ci génn waaye nag dina ma jafe ci man sama bopp ma ne leen nangam xëy moo ciy génn loolu damay xaw a prétentieux ba mu ëpp mais ce wor que ay travaux fu et pendant six mois c'est tout à fait normal des emplois même si c'est des emplois temporaires président def ñu waxone avant 2023 bëgg na créer 2000 emplois ci formons, pavage ñu former len à l'insertion, ci insertion accompagner len c'est pas parce que nous former nañ nous les nañ ci insertion dañ len des salaires permanents tout au contraire suñu combat dans ça moy participer à l'employabilité de ces jeunes là